salaamaaleykum daleen nag jàmm si Xarala Academy mbokki seen Xarala Academy suñu vidéo passé créé nañ suñu API bi ba nga xamante ni mu ngi marche mën nañ ko tester muy dox léegi tey am na outil yoo xam moom la ñu utiliser pour teste API mu la leen bëgg présenter bu si njëkk moom mooy Postman bu ma gën a tàmm man bu may utiliser lu bëri mooy Insomnia parce que kañ laa ko. Euh, de kañ laa ko um, découvrir parce que damay liggéey lu bëri si GraphQL te vraiment Insomnia moo gën a puissant ci côté GraphQL voilà donc moo nekk ni Insomnia mën ngeen ñëw fii ngeen daal koy télécharger par exemple for Linux man télécharger naa ko ba pare mën nga ñëw tamit euh, Postman moo nekk nii mën nga ko télécharger aussi bon am naa ñaar yëpp ñaar yëpp ñoo nekk nii dama leen di wan xamal bi Insomnia en même temps ma lancer Postman ok boo une machine euh, robot moom <laughs> euh, machine bu baax bu taxaw lancer les deux en même temps ok bon ok ok léegi insomnia ni lay présenté woo bon naka laa mën ba fermer tous les requêtes comme ça euh, c'est impossible quoi ok d'accord pas de problème amul restart ok pas de souci grave. donc insomnia ni les ni les présenté côté bini, mon moi, par exemple fi ngay def bu am autorisation comme fii man fii autorisation moo tax def better le résultat commande bu bu nekkee postman sorewuñ xaaral woon leen postman moo nekk nii bon attends je vais supprimer tout ça ok donc postman moom tamit moo nekk nii don't save ok léegi fii lay fii tamit lay présenter requête yi ngay def fii lay afficher résultat par exemple tey bu ñëwee ñu def ñu bës plus bi mën nañ def fii benn end point voilà léegi comme sànq lu mu leen doon wax mooy verbe http get post put delete voilà donc endpoint bi tey lan la war a nekk moo moo nekk nii xaaral ma leen ko bu baax ngeen xool suñu endpoint fii hmm, moo nekk nii mooy local localhost API contact léegi tey lan lañ bëgg a def mooy get voilà léegi ñu xool ñu def benn get ak tamit euh, postman donc ñu def send ñu xool résultat bi gis nga get bi moom moo nekk nii. comme ni ngeen ko gisee mu nekk loo xamante ni lu simple la lu gaaw mën ngeen def tamit post mais post day wut tudd ak get bu nekkee da ngay def post da ngay ñëw si body bi fii nii nga daal def non ID da koy créer automatique ID da koy créer automatique bon je vais supprimer ça ID ID euh, ok bon row ngay bës row waa non non pas ça attends attends attends attends body body body voilà row non pas row ok JSON voilà moo nekk nii voilà léegi fii ngay ñëw nga daan def par exemple euh, comment on appelle ça nga def first name euh, par exemple xarala tous les champs obligatoires da nga leen war a def voilà last name nga def académie léegi xamal leen suñu modèle bi lu fa nekk hmm, ok ak tamit téléphone da nga bon euh, ñu téléphone Wa bon téléphone mon ok crédit by moo bon léegi par exemple def données yi da ngay post voilà this field is required mu euh, cette, comment on appelle ça Ce champ est obligatoire. D'accord. Ici si Django REST par exemple nous ko mën gérer mooy da ngay def utilisateur mu on a authentifier ñu autoriser voilà Nous foog nga une fii autorisation bon am autorisation yu basique off moi, notre utilisateur bon je vais mettre admin mot de passe je vais mettre mot de passe boo xamante ni moom utiliser par exemple mot de passe bon, utilisé utiliser pour connecter wu fii mooy mot de passe bii nii anam sax euh, comme boo déconnecté woo mot de passe bi nga utiliser fini. nii moom ngay utiliser waat mais loolu tamit foog nga gérer ko ci euh, comment on appelle si si views bi fi. Euh, ok donc je vais vous montrer ça da ngay ñëw fii nii ñu méthode bu de save euh, bon dama leen di par exemple Django REST framework perform perform dans la sax perform perform create perform create je pense c'était quelque chose comme ça perform create ok mon nekk perform create mon je vais vous montrer est-ce mooy vous <laughs> Overflow les développeurs xam ngeen fii bu baax accueil ñu ko miin ñun ok bon perform create lii laa soxla woon bon dama koy copier bon Stack Overflow dama koy conseil bu baax tamit ngeen mën ko gérer moo nekk nii ok bon dama bëgg récupérer utilisateur bi damay def par exemple user égal self dot request dot user donc bon au lieu de auteur ñun kan lañ am fii sax created by lañ am moom la ñuy def foofu donc dama koy remplacer par created by fi ma remplacer ko par user voilà li tout simplement danaan ko récupérer utilisateur bu connecté wu nga naan ma koy defal si modèle bi léegi ñu xool ndax dina marché si ça marche pas aussi il y a d'autres méthodes <laughs> ok this field is required parce que jël ba tey champ boobu léegi mën nañ ko def par exemple ok bon am na euh, mooy ñu gérer partie authentification bi fii léegi authentification bi dinañ si ñëw si vidéo bi di ñëw pour wan leen nag nga mën a authentifier utilisateur bi parce que champ bi nekkul champ boo xamante ni day nul léegi par exemple bu la neex nga changer fii nii par exemple def ko buñ champ bi mu nangu nul voilà mais man du ma def champ bi nii si vidéo bi di ñëw dinaa leen wax nag ngay authentifier utilisateur bi merci